troisième question bi Oustaz kii nag nee na moom depuis ñaari at jëkkëram yëgatul boppam. luy loolu. <laughs> nee na jëkkër ji depuis deux ans yi jëkkër ji cukur mutu cukur cukur mutul cat la rek. léegi nag léegi nag moom nee na dafa bëgg a ñaan baat jëkkër ji. ay waay ko gunge rek. waaye. <laughs> pour le meilleur et pour le pire lañu waxante woon jëkkër ji cukur te mu koo yërëm rek léegi luy question bi mu ne. nee na yaayam nee na bu defee loolu wor lay doon. léegi muy laaj ndax loolu wor la ak ci genre situation yooyu lislaam lan la koy proposé oustaz. xam nga Pape lislaam dafa sóoraale woon loolu lépp. Mhm. ba ci boo demee ci téere fiq yi dañ lay wax ni la ba ci sëy ñaar ñiy sëy. Mhm. su jigéen demee ba yëg ni amatoo kàttan dañ ko tànnaloo ñaar. Mhm. Pape. bu mënatula muñ. Mm-hmm. day ñaan baat. Ah, am na ci droit te bu ñaanee baat charia da koy fekk si. te du benn bàkkaar. déedéet. Mm-hmm. su su su mënta ñaan baat ne mën naa muñ. Mm-hmm. may la dele nga faju ji. par exemple mën naa laa may trois mois nga dem faju ji. ndaw si toog trois mois kii nga songu àll bi fu ne nga dugg fa faju ji. boo wéruwee ngeen continuer soo wérul. bu ko neexee mayaat la yeneen trois mois muy six mois. Mhm. bu ko neexee ni fii laa koy yemale. Mhm. maanaam ci gàttal jigéen ji nekk ci buumu sëy di sëy nekk ak borom këram boroom këram amatul kàttan dem ngi moom lay neex. Mhm. su bëggatula muñ day ñaan baat te boobaa dañ ko war a may baat parce que am moo ko ko digal. lu ci am benn bakkaar mais nag dawal yërmande rek. waaw loolu laa wax ma ni su ma nee muñ. am na ñu mën a muñ Pape. xam wax na dëgg tamit parce que <laughs> di si daat naan cokkoro pole ping pong à la pipi naana mënta ñàkk cib sëy waaye de temps a temps situation majeure yi ñëwee nga muñal sa borom kër rek mënul ñàkk ah. su ma muñ eh? mën na toog deux ans mbaa trois ans waa ji may ko may ko délai bu sori waa ji faju nga xam nga yenn saa yi tamit day am faju yoo xam ni da ngay dem sa xam day jeex dëgg la ce que dina wérati <laughs> ah? dëgg la de te yooyu pap nit ku nekk nit nga ah nit kay nit la ma mën ngaa dem un a cokoroboo la moom du ko def <laughs> cokoro pole ping pong ala pipi naana <laughs> mën ngaa dem ba mu yàgg pap mu poussé la ci naka su noonu waaye quand même quand même te loolu bàkkaar te li tax sàcc di mooy yàlla te am jëkkër bon mooy bis boo essayé dootoo bàyyi ah, bàyyi sàcc ak ni mu neexee yaa ngi dégg bàyyi <laughs> xarit sama xarit ne woon laan <laughs> bàyyi moo tax alxuraan bi mu koy tere. Eh. daf ne bul ko jege sax waxuma la ak di ko def mooy wala taqrabu zina. allah bu yaa ngi dégg. Eh. kon moom su ma nee muñ. Eh. xayru su mënta muñ na joxe délai. na afa sax. bu délai bi matee nag. su ko neexee yokkaat délai. su mënta mayewaat délai nag am na droit ñaan ba. wallaahi wallaahi mais lislaam daal ñu dawal yërmande tënkul benn jigéen ni ko da war a toog far force comme sa boroom kër mënatul. Mm-hmm. yow lay neex. Mm-hmm. waaye nag ñun sénégalais sunu yërmande ak sunu mm-hmm. maslaxa ak mbokk gi. tas sa sëy lu tax nga tas ko. te doo wax benn raison bu wóor parce que xam nga mënoo taxaw fenn naan sama jëkkër daa mënoon mënatul. am na ñu am fit bi. xam nga eh, eh, moo loolu foo ne. xamante ne ñoom. jaar ci digg bi moo yow dama bàyyi. am ñoo xam ne conférence de presse la ñuy woote fu ñu dem toog amee seen jëkkër yi barki Serigne Touba. lan yow daa yow fan nga ne lan la luy problème bi lan la noonu la cas bi demee de. mais ah. sutura dafa baax. mais en même temps dawal yërmande ci sa diggante. waaw dawal yërmande bi ak sa soxna wala ak sa borom kër. waaw dara parce que mën na ja dal ñaar ñëpp ah. mais dëgg la waaw mën na dal ñaar ñëpp. dëgg la Pape mais nag Pape. ne daal ak sutura kiyaa dafa am solo. Mhm. surtout nag ci jigéen. Mhm. parce que nit war nga mën a nekk ak sa borom kër feebar dal ko parce que pap gis nga ñu bari jàpp nañ ni télé. Mhm. feebar buy dal nit la gis nga pap télé stress mën na koo def nit. non mais c'est lépp ci xel la. pap nit dana am ay problème ci bopp bi ba loolu du ne ci bopp bi te boo ko ko forcé du du sori du dem. wallaay du dem dëgg la parce que problème yi nekk ci sa bopp bi alaaj pap lu yaas njàngum xale yi. fay fa tiir Ah, bor yi gàllu ci sa kaw amagoo xëy. nga bari yoo war a réaliser te amagoo ko. gaaw a sëngeem. problème yi bari alaaji paap. Mm-hmm. jamono. wallaay dafa metti wallaay dafa metti xam nga moo tax il faut nit ñi di am compréhension. Ah. di xam tolluwaayu jamono. Mm-hmm, mm-hmm. ñii dañoo jabet. suukar si. mën na leen. ci jabet bu yegg te <laughs> safut la <laughs> ah, yëpp lay yóbbu te jabet bu yegg day yóbbu yëpp. Hmm, yàlla wax na nañu muñalante na jëkkër yi muñal jabar yi jabar yi muñal jëkkër yi loolu mooy l'essentiel bu tey naqaree daal waa kay xalaatal ni démb neexoon na wallaahi jëlal démb taf ko ci tey ñaar ñëpp neex wallahu taala am voilà koo ping pong démb boo demee ba mënatoo ko ping pong war la mën a comprendre merci ci réponse boobu yow sa